dama ciy profité waale di ci remercier bu baax Yankhoba Diattara parce que daf ci dox ay jéego yu bari ñun bi ñu taxawee di wax ci basket bi am na ñoo xam ne nanguwuñu ko woon lu mel ni Babacar Ndiaye musul bëgg dégg baat bu ñuy wax CRBS comme moom dafa doon utiliser lu mel ni cadre de con con con euh, euh, cadre de concertation ngir jot ci li ñuy wax fédération bi bépp kuréel bu jógati bu wane cadre wala convergence dafay foog ni moom xel bu mu amoon ba nax sénégalais yi toog toog foofu mu toog ñun boobu xel la ñu am. Yankhoba nag nekk ministre boo xam ne moom moo ñu recevoir ñu wax ko suñuy doléance ci lu mel ni secrétaire général fédération bi presque pendant huit ans benn secrétaire général la fi mosoon a am Fall c'est le DAPS actuel. moom mooy Babacar Ndiaye fexe na ko fexel ba waa ji daal di jóge foofu dem plus de six ans presque basket mënu ko am Yankhoba Diattara moom moo ñu jox ko rek secrétaire général ci rek demande CRBS ak pression boobu boo xam ne def nañ ko comité ad hoc bi ñu teg tey jii ngir mu daal di xayma atte élection yi ñun ak fédération bi tamit vraiment ñun ñoo ko demandé bu desoon ci Babacar rek dafay teg ay ñoñam jéem a organiser élection yi ñun ñoo ko wax ni mënuloo nekk candidat ba pare di wax ni da ngay organiser élection jub la au moment où mu déclaré boppam wax ni candidat la ci la waroon na wax xaar yi proposé ne sax benn genre commission ad boo xam ne képp ku bëgg a nekk candidat boo ñëwee ñooñu ñooñu ñooñu maanaam day danañ leen jox seen. ak alors dafa benn coow lu jib ci biir wax ci mhm. moom mooy ces clubs fictifs. Mhm. yi ngeen xam ne am na ñu si bëri ñu jàpp ne Babacar Ndiaye def leen créé. Mhm. yéen au sein de ces clubs fictifs là tey ces clubs là ñoom ñu war a voté. alors club fictif yooyu comment en est-on arrivé à à ce moment-là ñuy créer ay club fictif loolu benn la de deux ci seen biir communication souvent on voit des images du stade Marius Ndiaye yoo xam ne ñu ngi défilé. Mhm. donc pourquoi cette communication là. Euh, xam nga club fictif yi dara dara warula ko du compétition du yokk basket yokk électoral la Babacar Ndiaye dafa jël déplacé ko jële ko ci ay terrain yóbbu ko ci ay yëfi politique ak ut ay carte de président Euh, tey ji non du ñun fan nag la ñu nekkoon parce que man tey ji am na yenn ah, illégalité yoo xam ne non no waaw non non non je le comprends non non xam nga tey mënoo ah. fekkee benn nit jox ko li nga koy jox ne ko ñëwal man danaa la fayal affiliation ba nga koy waxtaanee ak moom man loolu noonu fekkewu ma ko dama ci mënul a intervenir mais championnat pour pour pour pour toll ni Sénégal gars yi ne am na plus de cent soixante dix clubs yoo xam ne dañ ciy compétir même yéen sax xam ngeen ni loolu amul moom moom maanaam li muy def dañ ci yaakaar tey ji comité ad bi ngir moom mu xool naka lay saytoo parce que nag ñun dafa commencé sax di tey suñu xel naka lay téyee suñu xel moom mooy bu ñu la installé tey nga nekk comité ad hoc galaa ngay jël benn décision wala nga wax ko bu dee am na ñaari parti danga leen a war a woo impliqué leen ci waxtaan bi par rapport ak processus bi mënuñu dem ci benn élection tey boo xam ne fichier bi club yi war a voté tey Babacar Ndiaye ko am ki ñuy wax Pathé Keita tey xamul ban président moom moo war a vote ban président moom moo war a vote te yéen Pathé ngeen bëgg mu falu non parce que non même euh, sa bu ñu bëggul mu falu candidat la que dafa déposer caution ñëw taxaw wax ne bëgg naa Babacar tam taxaw wax ne bëgg naa donc arme yi Babacar yor yooyu noonu la Pathé war a yor mm. dafa waratu la mën a moom utiliser fédération bi ak di dajale ay président de ligue pour rek ñu koy dajaleel ay président de club par rapport ak ay région mu dem di leen rencontrer. léegi est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus important wala sax pertinent ngeen ngeen ngeen interpeller directement les autorités. autorités yi interpellé nañ leen. looloo indi comité ad bi. waaye nag dama ne ñun xaar nañ leen ñu woon ñaari parti bu ñu ñëwee ñu toog ñu daal di auditer ndoo fichier yi parce que nag ñoom woowuñu leen ngir ñoom ñu ñëw jox ñu ay leçons parce que nag dañ leen fi installé ngir rek élection yi. nag comme nag élection dañu wax te nag am na ñaari parti mais mënuloo dem élection tey te sax ñi war a voté fichier bi yoruloo ko mënuloo dem élection tey te nag doo sax sukkandiku ci kayit yi nga xam ne xam nga dama leen wax sànq ni un crime n'est jamais parfait Babacar bokkul tey jii benn daa rek ci am bu indiwul benn coow ci basket bu candidature am amul benn takk-takk moom mooy pàcc kayit Babacar Ndiaye tey jii maanaam kayit yi mën naa leen fi jox léegi ay genre statut ak yoo xam ne ministère de l'intérieur la nekk foofu waaw non foofu la affaire bi ne te nag ñoom nee nañu même boo changé statut ak règlement wu association da nga am trois mois ngir rek déposer ko ministère de l'intérieur ñoom ñoo koy jël appliqué ko nangu ko jox ko sa rek tutelle tamit wan wan ko ni carrément que association bi kat li mu jël dëppoo na ak droit ak règlement wu dëkk. waaye nag loolu dafa am ay forclos. lépp loo gis que dafa am date man sànq bi ma tardé tuutee des su ma toog fii. Hmm. parce que dafa am heure bu ñu ma jox. dañu ko wax ni trois mois nga am képp ko yor association loo changé ci am nga trois mois ngir yóbbu ko ministère. mais moom toog na six mois. ngir rek defaraat kayitam yooyu wax ni da koy yóbbu mais loolu ça veut dire que dafa fort. en tout cas